jërëjëf Anna Thiaw ñu ngi am mbégte dalal euh, directeur communication ak marketing bu Génération Foot euh, Talla Fall ñu ngi lay nuyu. maa lay nuyu Fatou di nuyu auditeur u Rewmi FM yëpp. Euh, tàmbalee waxtaan wi nag ak mbiram Sadio Mané ndax yaakaar nga ni tey Aliou Cissé am na keneen ku mun a wuutu saajo ci mondial bi ñu jëm. waaw mais man balaa may wax ci loolu Fatou dinaa la ne. soxlawul ñuy jéem a ut beneen euh, alternative ci situation wu Sadio donc hmm. nañu toog ba jàngat euh, xam jàngoro bi lan la hmm. xam fan la tollu est-ce que daf koy mën a tere ñu jouer match yëpp wala dafay mën a tax ñu xam ñaata temps lay durer blessure boobu am ñu mën ko faj ba nga xam ne dina mën a revenir à la compétition ndax euh, loolu aussi tamit lu mënta xam la donc lu mel noonu nag la ñu war jàngat man li ci gën a metti ci euh, traitement wu information wu Sadio Mané mm-hmm. mooy que journal bu mel ni journal l'équipe mm-hmm. ak ni ko xamee jékki-jékki dégg blessure daal di rek suba Sadio Mané forfait na mm-hmm. bokkatul ci mondial donc ci angle de traitement boobu ñu ko jëlee defuñu la même chose ci Benzema. Hmm. Benzema toog na un mois ak fi ñu toll nii depuis mu am son ballon d'or benn match la joué et depuis lors joué wul mais musuñu toog ne Benzema sera forcé pour le mondial. Hmm. mais donc nañu respecté ñi nga xam ne ñoom la ñuy lii seen ay lecteurs ci xam ne sénégalais yi dañ ci bokk. Hmm. à partir de ce moment bu fekkee ne même respect boobu la ñu am. ci sénégalais yi doon nañ buñ ko amee ci seen ay mbokk ñoom. ci mm-hmm. tubaab yi. Mm-hmm. nañ ko am ci ñun. parce que aussi tamit bu fekkoon ne euh, varaan ñi nga xam ne dañu xëyoon xëy ne oui dootul bokk te xëy bés naa xëy ne non dina mën a bokk ba finalement bokk na ci liste bi. Mm-hmm. Benzema bokk na ci liste bi te pourtant il plus. ba waa Real fi mu nekk ni ñu ngi jàmbat sax pourquoi am na ci ay anciens joueurs yoo xam ne ñu ngi koy wax. donc kaawu Sadio Mané nañ ko traité. de manière respectueuse. pour yow l'équipe lan moo tax mu defee noonu. mais yàpp. Hmm. parce que information bu mel noonu. Mhm. ak réew bi nga xam ne fa la mën a jëm wala continent bi nga xam ne sax laa wax. àddina yëpp la yëngal continent bi. Mhm. mais donc loolu boo koy wax ne la leer parce que nag aussi tamit ñun duñu ay mbojo mbojo yoo xam ne da ngay xëy rek suba di balancer lu nekk ci suñu réew. Mm. ba pare ñu war a mën a toog bàyyi leen ci noonu. Mm. donc ñenn yi man pour man respect la ñu war a njëkk a jiital parce que information boo koy traité da nga koy traité de manière respectueuse parce que doo joxe n'importe quoi. d'accord alors mm-hmm. Sadio Mané tam est-ce que buy ñëw dina nekk à cent pour cent est-ce que tey bon jarul tamit ñuy tiit ci ci ci poste bi nga xam ne moom la doon occupé. mais cent pour cent jours yi fay ñëw yëpp munoo wax ne ñëpp cent pour cent la ñuy ñëwee mm-hmm. déjà ne serait-ce que mentalement mm-hmm. psychologiquement physiquement ñoom ñëpp ku nekk di nga ñëw ak benn pression mm-hmm. xam nga donc maintenant dañuy ñaan yàlla ku nekk nekk dans les meilleures aptitudes ba nga xam ne booy ñëw tey ñun ñoo leen war a mën a defaraat préparation psychologique bi nga xam ne moom la laaj Euh, préparation médicale bi nga xam ne moom la war a laaj préparation physique bi nga xam ne moom la war a laaj parce que ci diggante boobu lan la ñuy war a mën a seet temps de repos yi naka la ñuy euh, gérer blessure Sadio Mané ci groupe bi mhm. xam et ban durée la loolu di am te loolu il faut ñu am ay spécialiste yu wóor mhm. yoo xam ne dañ la naan foofu mu nekk ci période blessure am boobu ban temps lay jël de guérison naka lañ koy gérer par rapport au groupe kan mooy war a mën a démarrer tournoi bi en attendant mm-hmm. Sadio Mané di ñëw parce que du loo xam ne lu bees la ci tanière bi mm-hmm. gisoon nañ fi taaw Ismaïla Sarr te gérer nañ ko gérer boo xam ne Ismaïla dellu si na ba yaakaar bi ñu doon am xëy na amuñu ko à cent pour cent ci biir tournoi bi. Mhm. mais apporté nañu au moins soixante à soixante dix pour cent. Mhm. ci li nga xam ne doon nañ ko xaar ci moom. et loolu en lui il en est conscient. Mm. alors bu weesoo Sadio Mané euh, Abou tamit ñu ngi wax ne blessé na Saliou Ciss euh, compétirul euh, donc ak ñeneen ñoo xam ne peut-être ñu ngi ci instabilité boo xam ne mentalement mun na leen affecté est-ce que lii yëpp buñ ko dajalee xel mën naa dal ci participation wu Sénégal ci mondial. mondial bi. bien sûr hmm. participation Sénégal ci mondial bi loo xam ne dañ koy laam-laamee di ko di ci di ci am doute laa mën a wax. Hmm. bon Abdou Diallo blessure am c'est pas aussi grave que ça. Hmm. donc certainement moom ci boppam moo bëggul woon nangu jël risque parce que du ci biir match la ko amee. c'est à l'échauffement. d'accord c'est entraînement. donc échauffement la sax avant match. d'accord donc ci échauffement la amee blessure sentir benn douleur. et joueur professionnel. ñoom hmm. dinañu xam à un moment donné seen yaram ni mu laaj. Hmm. bu fekkee ne dafa jar ñu xool ko mais bon soxlawul jël risque. Hmm. parce que on est à quelques jours du mondial staff bi dinañ toog xool ko waxtaan a moom ne ko non soxlawul. match bi mën nañ la ko jéggal hmm. parce que jël fi risque joué loolu blessure bi aggravé wu hmm. mën nañ ko traité mën nañ ko faj hmm. bu ëllëgee ñu defal la scanner bu scanner bi doyulee ñu def IRM ba xam lan moo ci nekk donc yooyu je pense que ne staff yi seen euh, professionnalisme mooy tax ñu jël yooyu décision donc nañu xam nag exactement bulletin d'information bi lan moo ci nekk balaa ñuy mën a prononcé wu sur son état de santé. Mhm. concernant le cas de Saliou Ciss. Mhm. Saliou Ciss man ci sama wàllu bopp ni ma gisee dama yaakaar ne staffam ñoom ñoo tuub. Mhm. parce que koo xam ne da nga nekkoon joueur libre. nga continuer di entraîner ci institut bi nga xam ne di jàmbaar moom moo la formé woon. pour man mënoon na démarrer ak ñoom. di jouer ay match parce que tey bu joué woon ñaar ba ñetti match ak jàmbaar. kenn du contester convocation ci équipe bi. doon na mën a jouer parce que dina am temps de jeu dinañ ko ko nangul même bu dee Sénégal lay jouer alors que c'est un joueur professionnel. Mm. bu nekkoon Europe don jouer à Nancy et tout ñu demee noonu wala Valenciennes. Mm. je sais même plus mais quelque part dinañ ko nangul ne kii mi ngi doon compétir. kon jàpp nga ne Aliou Cissé du jël risque di ko boole ci liste bi muy publier tey. ci ci ñu ma xamee Alioune Alioune du ko jël non Saliou Ciss du ko jël. loolu moom moom gëm naa ne du def loolu parce que jour la bu joué wul. Mhm. jour bu joué wul nag te nekkoo sax ci club. Mhm. kooku man du ko jël parce que ëllëg day indi leneen. Mhm. point la tam buy wàññeeku ci Sénégal. waaw point la buy wàññeeku ci Sénégal parce que gënu parce que tey Saliou ak li mu wone yëpp. Mhm. ci Coupe d'Afrique bi. Mhm. complicité ak connexion bi nga xam ne moom moo nekk ak moom ak Sadio. Mhm. donc loolu vraiment lu du lu ñu gënaloon parce que yaakaar yaakaaruñu woon ne aussi tamit dina yegg ba foofu. parce que kenn xalaatul woon ne Saliou dina toog ba heure bi du am club. kenn xalaatu sama laaj bi sama laaj bi day ñëwaat de Talla est-ce que participation au Sénégal xajamul dès l'instant sax que Aliou Cissé moom mi ngi engagé wu di wax ne euh, mun na def euh, euh, plus que deux mille deux mais tey lii ñu gis nii tamit est-ce que tamit jaaxle warul ñëw non jaaxle jaaxle c'est trop dire quand hmm. même wax yenn yoo xam ne dafay faire mousser alors qu'il rien rëy ci mm-hmm. ci football parce que mm-hmm. dinañ am toujours solution dinañ am toujours ay alternative mm-hmm. ci loolu xëy na Saliou ci lu mu jot wane tey moo gën a tax ñu naan yaakaar la boo xam ne euh, foog ñu ko woon ne dina yegg ba fii mais mais li wóor ba wóor mooy tey suñu côté gos c'est vrai que côté bu war bu nar a faible la mais toujours am nañ ci solution parce que ci biir équipe boobu Ismaïla Sarr mën nga ko jouer loo à gauche comme à droite. Hmm. en attendant. Crépin mën na jouer à droite. Hmm. xaar loolu ñu defaru en attendant ñuy retrouver les nos nos nos nos yaakaar nga ne mën nañoo romb li ñu defoon 2002. lu mën a nekk la parce que en football. Hmm. y a la vérité du terrain. rien n'est impossible. rien n'est impossible. engagement la détermination la attitude bi ngay am sur le terrain moo lay mën a permettre nga mën a envisager un bon résultat et tey blessure Sadio dina mën a tax peut-être que par moment xale yi nekk ci terrain bi gën a fas jom. sa que ne xëy na mën na raté premier match. mais mën nañu fekk si ci deuxième match bi. donc mais loolu aussi tamit tey ci football ak ni mu tëddee dafa laaj préparation mentale. am un préparateur mental. à di étoffer le staff médical surtout. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que moment bi ñuy jouer compétition bi dafa xaw a métti. waaw donc amuñu temps de repos bi nga xam ne. Mm-hmm. moom moo tax spectacle bi nit ñi di mën a xaar. ci football mën ko am. te mondial bi yëpp la sax parce que compétition yi moom daanaka joueur yëpp a ngi ci. non dafa bare. dafa bare compétition yi dafa bare. ci ko ci faa xam ne joueurs yi duñu ay machine ay nit rek lañu kese. am na ci benn défenseur bu nekk Bayern ak Saliou ak Sadio Mané wax na ko mhm. Pavard mooy latéral droit wu Bayern di jouer euh, équipe de France mhm. nee ay nit la ñu mhm. nañ ñu considérer lu ñu a pas que le gain y a pas que l'argent nañu jàpp ne ñun dañuy jouer te dañuy def spectacle spectacle bi nag acteurs yi koy def il faut que ñu nekk ci conditions yi gën ba nga xam ne lu ñuy produire day neex a seetaan parce que football d'abord spectacle ah. man dama koy seetaan di apprécier. Mm-hmm. yow da nga koy seetaan di apprécier. Mm-hmm. keneen di ko seetaan di apprécier. Mm-hmm. mais bu fekkee ne ñi ko war a def. ñoom ñëpp kenn wérul mais spectacle bi du rafet. du neex. et ça devient ennuyeux. alors donc, un, un mot sur le contrat de Aliou Cissé bi nga xam ne dañ ko prolongé ak trente millions de francs fa lu jaadu la ci jamono ñu toll. ci football. Mm. contexte bi soo ko jëlee ci football mën a nekk la. Hmm. soo ko jëlee de manière beaucoup plus globale ci Sénégal hmm. ak conjoncture ak hmm. àdduna bi ñu mu ci jamono ñu toll nii dina xaw a nga xadee expliqué mais football moo moo nekk loo xam ne lu nekk à part la parce que boo xoolee salaire yi nekk ci football amul fen transfert yi nag ay milliards yi milliards la da ngay gis xale boo xam ne mën na nekk milliardaire à vingt ans vingt cinq ans ci football donc ñu fay ko loolu ci sélection bi mu yore ak résultat yi mu jota def ba jox ñu coupe d'Afrique moi je trouve normal y un fonds spécial boo xam ne bi nekk fédération mooy jël quinze millions état du Sénégal jël quinze millions donc noonu la ñuy defee répartition bi pour mën ko fay donc du état bi rek ay fay fédération daf ciy jël une partie. Mm-hmm. Euh, état bi jël une partie benn genn ñu jeexal rapidement ak foot local bi génération foot quatrième la onzième la jël après quatre journées euh, mu mel ni yéen a ngi ci ay jafe-jafe waa jafe-jafe dafa ànd ak football hmm. dafa ànd ak kuy compétir donc euh, génération foot nekk ci classement bi du lu ñu séntu woon bi ñuy démarrer championnat bi mais lu mën a nekk la heureusement que mu am ci moment bi ba ñu mën a war a taxaw ba président bi mën a waxtaan ak staff bi ba mun leen xamal ne aussi tamit li ñu nekkee nii di nga xam ne moom moo ñu gënal mais loolu dafay am ci mm. football ci noonu loolu ci la bokk. Mm. dafay doon loo xam ne aussi tamit mais dafay jar jàngat. Mm. lan moo ko indi lan moo tax lu war a lii donc à partir de ce moment di nga mën a xam fan nga toll ak lan nga mën a changer wala lan nga mën a def ba remonter au classement. pour mën a nekk place bi nga xam ne moom moo méngoog ce statut parce que génération foot nekk onzième à quatre journées euh, du championnat jaaduwul maintenant ak moyens yi nga xam ne moom la ñu yàlla defal ak li nga xam ne infrastructure yi ñu am war na mën a tax ñu mën a gën a liggéey gaaw a remonter au classement pour mën a euh, envisager euh, des jours meilleurs. Hmm. envisager it jël championnat bi. ah mais loolu ci objectif génération foot la bokk. Mhm. donc nous on est des compétiteurs. on est là pour gagner des titres. Mmh. on est là pour euh, jouer les premiers rôles. donc euh, loolu du loo xam ne dañ koy dañ koy lamlamee. Mhm. génération foot boo fa en tant que joueur en tant qu'entraîneur en tant que dirigeant lu mu mënti doon. tu es là pour gagner. Mmh. et c'est gagner des titres. Mhm. loolu moom mooy euh, objectif principal jërëjëf Talla Fall amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ni yow yaay directeur de la communication bu Génération Foot. merci beaucoup Fatou merci aux auditeurs de la de Rewmi FM. merci beaucoup.